salaatu moo tax Tuubaa barab la boo xam ne kuy waaj di fa màggali na nga xam na ngay deme ah ci sellal fas yéene jaamu ji yàlla jaamu ji yàlla nag boo koy def muy ca kor ñi muy ci jigéen ña danga koy bàyyi xel ca col ga bàyyi xel ca wax ja bàyyi xel ca boo demee lala tax a jóg muy jaamu yàlla nga fonk ko jàng alquran ak xasaayit ak bernde ndax xaadim rasul loolu la waxoon moom li tàmbalee ci ginaar ba ci gëléem lan moo waral seex muhammadul xaadim santaane ñu def bernde moo di doomu aadama fu mu mënti nekk nomba wanam lii jiitu ci moom nga xam ne moom la gën a soxla moom la gën a bëgg te mënta ñàkk ci moom mooy loolu ñuy wax xiiwal lekk manta ñàkk ndax saaku bu deful dara du mën a taxaw nit ki bala muy mën a jaamu yàlla faw dafay xiiwlu ba am xelam dal moo tax xaadim rasul bëgg ñu fonk bernde yi ndax maam Cheikh ma Fall daan na wax ne hee ah doom dabe ndab dabe ndab dabe ndab mooy bokk na ci li gën a gaaw a egg ci yàlla di nangoo joxe aw ñam su ko defee nag kon bokki jullit yi bokki taalibe yi màggal gaangoog ñu doon leen ci defal waxtaan woo xamante ni dañ koy defee waajtaayu safar ngir képp koo xamante ni ab taalibe la mu xam ni ah màggal gi day ëgsi na waxtu wu ñëwee nag ah maanaam cëlees di rawantee maanaam bisam bii di màggalug Tuubaa ci la nit di rawe moromam ba faw waaye cëlees di rawe nit ba faw kon su xasee ñëw ñu toll ci safar bii di ko waajal ah fas yéene nag dem màggali ci bismillahi rahmaani rahim dellusiwaat ci alhamdulillahi rabbil alamin ñuy dénk nag ba tey suñu mbokki chauffeur yi ñu gën a góorlu bu baax a baax ci yoon wi sàmmoonte ak doomu aadama yi mën leen a yóbbuwaat delloo si leen waat ci seenu njaboot ndax dara gënta miti waaj jóg tàggu sa njaboot ni da ngay dem amaat yéene fas yéene dellusiwaat sa kër maara day taali yeneen sabab am ca yoo xam ne dara waralu ko lu dul ñàkk a respecté code de la route na ko Cheikh Mamadou Fadal jàngale woon rek waaye da da chauffeur yi la wax noonu toog toog bu jekk waay téye ci ci volant bi maanaam téye bu dëgër ni jàkk ci sa kanam boole koog nag bu nee tacc nga ni tekk bu nee yang nga ni yoll te bul weesu téeméer bul weesu téeméer mooy cent cent à lu waay daw daw daw ak loo bëgg ay xel bul weesu cent ndax cent moom leneen lu ni bërët dox sa kanam boo teggee sa tànk rek day gën a daal di wàcc neex oto bi neex a téye waaye lu weesu cent nag moom mën naa am ni boo yëkkatee sa tànk yi téye itam su wàññi ca san la jëm te bu boobaa a ah, mën naa indi dal boo xamante ni du doon dal ndànk am na sax ñu yox naan daw ndànk dal ndànk waaye nag kilifa gu baax nee na déedéet boo dee daw ndànk danga nga dul dal sax ci dara faf da nga dul dal dal dal ci dara kon sa safar si ñu ngi leen di dénk loolu euh, ci màggal gi di ñaan yàlla dem ak jàmm dikk ak jàmm euh, doon def waxtaan wi nag fii ci réew mi TV mën nga ni réew mi live euh, di barab boo xam ne nag barabu taalibi la ndax ki nga xamante ni mooy kilifa gi di borom kër gi la tey muy alxaaji Mbagnick Diop maanaam barab bii ñu toog tey di immeuble mu Mouhamadou Lamine Baara moom la ko tuddee muy sëriñam yar ko di baayam soppoon ko lool bëgg ko lool alaaji ah, Mbañik doon koo xamante ni taalibe la boo xam ne ak taalibe la la doon dund ah, ci diggam ak alaaji Baara ba keroog bi immeuble bii noppee fii la ñu toog maanaam mi ngi mel ni tey ci man ñu def inauguration bi mu tuddee ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mbooloo mu bari daje fi ci ak taalibeem kon ñu ngi siyaare bu baax xalifaam bu baax boobu muy Cheikh Moustapha Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi nga xamante ni moom itam day sëriñu mbañik wañiku di xaritam di wëllëreem euh, ñu ngi jokkoo téléphone rek ma di ma xamal barki démb rek kenn la nga xamante ni alaaji mbañik yendu na ko fa ak euh, euh, doomam ju baax ji di sëñ Moustapha Diop macha allah kon daal mbañik fi ñuy daanee suñu kàddu rek mooy du taalibe bu xale bàyyi taalibe waxaale bàyyi nag maam Cheikh Ibrahima moo ko waxoon a ah, doom bu leen doon taalibe waxaale bàyyi ñu ne ko Fall luy waxaale bàyyi mu ni ah boutique ku ca dugg puis boo làmb ñu wax la njëgg te jëndoo doo sol waxaale jënd mooy tax a sol waxaale bàyyi nag mooy jël lu ci sëriñ gëj koo gis lu mat fanweeri at siyaaroo ko joxoo ko addiye ba dajeeg moom ci ngan naan ko ba nga ñëwee kër baay diw ci ron daxaar ga maa jébuloon ci yow boobu taalibi ab sëriñam du ko gane am xelam du ca ne mbañig nag defut loolu mu di saadix la bëgg sëriñam fonk ko taxawal immeuble bi tuddee ko Cheikh Mamadou Lamine Baara kon suñu toogee fii di waaye waajal màggalu Touba gi nga xamante ni wayjuram wu tedd moom Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy wayjuru Cheikh Mamadou Lamine Baara moo woote woon màggalu Touba gi waxoon ne waaye damaa ngottut waay dama su ma sañoon lu baax laay am te bëgg koo bokk ak ñëpp moo waral màggalug Touba fi mu ne gu réy gi Cheikh Mouhamadoul faadal moo ko woote Touba ba nit ñi di xëlëf xëlëfi ñëpp daw jëm Touba. kon daal mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi teg foofu suñu baaraam di wax ni mbokki jullit yépp ñu ngi leen di woo ilaa Touba ilaa Touba ilaa Touba wassalaamu aleykum wa rahmatullahi salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر